إلهي يا إلهي يا إلهي وإلهي توبة قبل المنون su ngeen déggee xasida yooyu jóg ngeen xam ni ndigal jóge na bàyyi ko ci xalif général de Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ñu ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yàlla mot may ko mu mottali naal yi nga xamante ni naal na ko jëme ko ci xadara maamam ju tedd jooju ndigal li lan la mooy gàmmu ji nga xamante ni moom la ñuy amal fii ci Zac Mbao ci wetu terrain football bi le 26 mars bii ñu jëm incha allah à partir de 22 heures ñu koy yëgal mbokk jullit yëpp du ko yëgal mbokk taalibe yëpp waaye di ci woo dëkkandoo yeeg ñiy wër Zac-Mbao yëpp ñu di leen woo ci guddi googu nga xamante ni kenn moomu ko kudul ki nga xamante ni moo waxoon anna minallahi wal muminina mun ni min ni tey nag ñu toog ak ki nga xamante ni mooy imam Ismaïla Samb ak sunu xaddam bu tedd bii suñu wet di imam di mu xaddam di taalibe ci kër gi di oustaz jiite nekk soppee Serigne Abdoul Aziz Al Amin balaa ñuy sori nag dañuy jox ki nga xamante ni mooy imam Samb mu woo ñi nga xamante ni mooy borom xam-xam yi wër Zac Mbao yépp mu woo leen ci guddi gi ñuy ñaan yàlla nag ñépp ñëw teewee ko ndax guddi la goo xamante ni guddi yiw la guddi sutura la guddi teraanga la kon imam salaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi woo imaamu commune de Mbao yépp jiital ci nak imam Zac mbawi yi jaarale ko ci president uh, des imams et oulémas de la zak de mbaw suñ ko jaarale ci mom jottali nañ mu jottaliñ ko imam yi yëpp teg ci it président des délégués de quartier de la commune jaarale ko ci Souley Dia mi nga xam ne mom moy président délégué de quartier fi ci zak mbaw kon nak ñu ngi leen di wo ci bés bi ndax bés bi mom ku ko tardé rek tardé nga lu reuy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. asalaamaaleykum mbokk jullit yi. asalaamaaleykum mbokk taalibe yi. Ah, bu ngeen gisee lii nag jataay bi ak toogaay bi degg nag xasida yiy jóg ngeen xam ni nag suñu bis bi ñëwaat na suñu gàmm gi ñuy def at mu nekk fii ci ZAC Mbao gàmm imaam Modou Cissé jiite ak imaam yi ci ZAC bi yépp commune bi ñu ngi leen di woo. diwoo woo waa département bi ak ñëpp rek bàyyiwuñu kenn rawatina nag jigéenu Zac Mbao na ñëpp génn bàyyi seen i néeg wàcc seen i lal teeru gan ñi teral gan ñi jox gan ñi ay xéewal ndax nag bis bi amuñu bis bu ko ëpp suñu bis bi ñëwati ne ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn ñi ngi woo présidente cellule yi ñi ngi woo présidente fondation yi ñi ngi woo présidente daayira yi bàyyiwuñu kenn ku lim wala do matale way dal bis baangi ngi na ñepp genn jàppale suñu bis bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh haja Ndeye Samb ci wote bu matale bobu nga xamanteni wonako mbokk jigen yi nga xamanteni lepp lo xamanteni doxna ci diine ji ba fi mu egg ken mënu len ci waaye ñu fàttali ñepp ne ñu ngi ci 14e édition gamu Zac mbaw wara am le 26 mars fi ci terrain de football bu Zac mbaw à partir de 22 heures. lu ciy xew nag mooy dinañ ci rendre hommage ay nit yu tedd ay wëllëre imam ay jege jegeñaaleem ñoo xamante ni lépp luñ daan liggéey ci diine ji ak ci kër gi seen loxo daan na ci dugg seen xam-xam daan na ci dugg waaye surtout nag seen taxawaay ci wàllu pas-pas te ka ca jiitu di Mourchid Iyane Thiam kooku Sénégal yëpp amel nañ ko hommage ngir yàlla ak fa mu ñu féete woon rawatina ci weer wi ñu jëm muy weeru koor ka ca tegu mooy ka nga xamante ni mooy Alassane Ibn Tidiane Anne moom it doonoon wóllëre ka ca tegu nag suñu sëriñ la di sëriñ Abdou Aziz Sy bu Seydi Jamil yàlla na yàlla li ko leer ak ki nga xamante ni mooy El Hadji Saleh Ba ñooñu ñëpp nag di wóllëre imam kon nag ñu jox kàddu gi ki nga xamante ni tey moo ne ci bopp mbooloo mi di borom xam-xam waaye surtout nag jël cër yi mu am yépp jëndee ko taalibe muy imam jiite kon imam bismillah comme ni ngeen ko déggee mbir maa ngi noonu woote baa ngi noonu programme baa ngi noonu gàmm gi nga xam ne ñi ngi ko dooral mi ngi bëgg yàgg ñu ni leen rek lañ ci bëgg utal yonent bi sallallahu alayhi wa bis boo xam ne moo ko moom gàmm yi bëri na waaye gàmm gu ñu tuddee sant Seydina Mohamed mi ngi dooree ci ñun ñu tàmbalee ko tant tant goo xam ne yonent bi lañ ciy sant di ko ci màggal di ko ci kañ di ko ci bàkk woote boobu moo jubaat ren ñu toll ci quatorzième édition comme ni ma ko waxee tombeek samedi 26 mars ñi ci war a woo yëpp woo nañu leen tàmbale ko ci njiitu réew mi ginnaaw ba ñu amee digal nag ci xalif général di Tidiane ndax ku baax ka sëñ Abdoulaye Sall Amin ba gàmm gi ma tey fukki at damaa ñëw ne ko góor gi dañu daan def lii waaye léegi nag mi ngi wëy waaye dañoo soxla sa ndigal keroog la sëñ Abdou ñaan ne am ngeen ci ndigal lu wér yëkkati ijaaza jox ñu kon boobu ba tey nag ñi ngi ci dem yëf yi di jëm kanam kon nag woote baa ngi noonu ñi ngi woon ñëpp nag bàyyiwuñ kenn. maa ngi tàmbalee sama woote ci sama néegu bàyyi alxaaji Souleymane jiite mi fi jóge bu yàggul te xalifaam tey di sëriñ moo duggee jiite waaye rakkam ji fi sës ci moom muy bàyyi si di jiite maa ngi koy woo ak waa njiite yépp bàyyiwuma kenn su ma nee njiite nag bàyyiwuma njiite njaasaan bàyyiwuma njiite sañoxo bàyyiwuma njiite yàddu fépp fu askanu njiite nekk maa ngi lay woo di woo nag waa askanu mbaabu gi nga xam ne ñooy sama néegu ndey bàyyiwuma kenn maa ngi leen di woo di ci bis bi te su ma tuddee xalifa bi sëñ Habib Baabu ak i magam ak i rakkam ñuy baale ñëpp géew te su ma leen tuddee nag néegu Adja Baabu dugg na muy waa ñigéen kon ñoom ñëpp nag maa ngi leen di woo ci bés bi ndax nit amul ay bokkam bu loolu jàllee nag am na ñi nga xam ne bis bi ñoom lañ ko parrainé ñii ñu marrainé leen ci ñoom it maa ngi leen ci woo ci bi nga xam ne seen bés la dañ ci jiital na ki nga xam ne tey moom la ñu dénk maire de la commune de Mbao muy Abdou Karim Sall di ministre de environnement moom na ku ne xam na kook man nga xam ne ba ma jàppee ba tey bàyyiwu ma te it ba mu àndeek man ba tey bàyyiwul te bis bii bañ ko dalee jàpp mu xam ko ba tey kenn mësu ko cee mën kon Abdou Karim tey yow la yàlla dénk commune bi yaa moom bés bi sa bés a ngoog fa la ñu yem ak yow di ci teg nag monsieur Mamadou géey secretaire général bu LONASE ku ne xam kook ñun di ci teg Mamadou lamin Diop moom nga xam ne conseil technique ministre la di ci teg tamit Cheikh Babacar Diop at Tidjani di ci teg sëriñ Bàcci Massamba jóob ak monsieur Malick Sarr DAGE bu ministre de l'environnement ak suñu wëllëre suñu xarit colonel Mamadou Fall waaye nag ki nga xam ne nag kenn la ci ñun muy monsieur Babacar Gueye ñi ngi ko ci woo ak askanam yépp waaye nag di woo Ndiouga Jonn Pape Sène taalibe sëriñ Saliou Mbacke bàyyiwuñ ko xalifa Khalifa kër Diouf moom it di suñu dëkkandoo di suñu xarit di suñu soppee ñi ngi ko ci woo monsieur Amadou Ba président bu synergie bu mbaaw maa ngi ko ci woo woo présidente bi Adja Garmi Diop waaye di woo waa Sénégal Zimbabwe yëpp bàyyiwuñu kenn marraine yi nag maa ngi ciy jiital sama xarit bi nga xam ni baayam dama ko ci rendre hommage muy Mourchid Ahmed Iyane Thiam muy madame le ministre Zahra Iyane Thiam nga xam ni bés bi maak moom ba muy nekk tàkkusaan la woon boobu déggagul ministre déggagul dara te ba tey di taxul mu bàyyi ma kon Zahra yow la ñuy jiital ci marraine yi ñu ngi la ci woo yaag askanu Iyane Thiam yëpp ñu ngi leen ko yëgal soxna Fatima Sy di doom ci sëriñ Abdou Aziz Sy Jamil ñi ngi ko ci woo moom mi nga xam ne bàyyam it dañ ko ci rendre hommage di woo soxnaam si mu bàyyi Adja Ndeye Ngoné Guèye Sy di woo askanam gi mu bokkal yépp maa ngi leen ko yëgal ñu ñëw àndandoo bokkandoo ñaanal góor gi madame Farouma Sissakho Crédit Mutuel du Sénégal bokk ci marraine ñi ngi ko ci woo sama yaay sama xarit Adja Awa Mané nekk chargé de mission du président moom it maa ngi ko ko yëgal di ko ci woo ay Aïssatou Ndiong présidente fondation Mame Fawade Wellé cellule bu Zac Mbao ñu ngi ko ci woo waaye na suñu jigéen ca France ñu tànn ko ci ma dem madame ma dem Ndiaye soxna mama Diallo ñi ngi ko ci woo di suñu wëllëre di suñu xay di suñu soppee soxna Salimata Seck ñi ngi ko ci woo Adja Ajara Cissé moom it ñi ngi ko ci woo Adja Marie Dem taalibi sëñ Babacar nekk ci rajo Mbaaw FM moom it ñi ngi ko ci woo soxna Miya Ndiaye mu sëñ Saalu ñi ngi ko ci woo ñooyu ñooyu ñi nga xam ne nag ñoom la ñu tuddee guddi gi waaye képp ki sëy soppi Seydina Mohamed guddi gi am nga ci cër bis bi nag suñu sëriñ yi nga xam ne dañ koy teewee ñu ngi ciy séentu Chérif Hamza Aydara At-Tijaani di ci séentu sëriñ Moulay si bu sëriñ Habib bu Cheikh Seydi El Hadji Malick si di ci séentu sëriñ Ahmada si Jamil waaye di ci séentu sëriñ maam Ousmane si Jamil waaye nag di ci séentu sëriñ Lam Tooro si da baax waaye ki nga xam ne nag moo ñu jàpp te bàyyiwuñu sëriñ maam Abdou Aziz si nga xam ne nee naa ko ne yow yaay marabu de la jeunesse moom it ñu ngi ko ci woo maa ngi woo sëriñ maam Thierno imam ibnu Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni di sama wëllëre di sama xarit maa ngi ko ci woo di woo nag soxna umu salamata bu cerno muntaga taal di woo soxna asiitu si maam as ibnu di jamil soxna umu xayri si bu sëriñ moustapha si bi ñu dénk cheikh markan moom it maa ngi ko ci woo waaye sëriñ cheikh omar kan tamit ñu ngi ko ci woo bu baax soxna maam ant mbàkke di sa doomu sëriñ moodu xabbaan mu cheikh ma numbe nga xam ne ñoom la sama baay yaakaar ñooñu la sama waa yaakaar ñoom it maa ngi leen ci woo bàyyi ma kenn bàyyiwuma waa kër sëñ moodu xabbaan kon nag woote baa ngi noonu bàyyiwuma daayira yi bàyyiwuma association yi bàyyiwuma jam yi bàyyiwuma soppe yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew su ma tuddee Adja Ndeye Waré Ndiaye ca Allemagne mu yóbbaaleel ma képp koo xam ne soppe imam jiite nga te nekk Europe ak lu ko wër ñoom ñëpp maa ngi leen di woo di leen ko yëgal comme nag bés baa ngi noonu am nañu yaakaar ne ku ci ñëw yàlla dina faj sa waajo kan mooy taxawee guddi gi oustaz Tafsir Abdourahmane Gaye mi ñëpp sopp kan moo koy wéttali ci jàng yi mooy si Ahmed Mbaye bu Tiwaawoon kon nag guddi gaa ngi noonu fas yéene nañ ko bokk ñëpp képp kuy sëppe Seydina Muhammad woo nañ la ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.